ku ci nekk bëre ren waaye ku ci nekk sa combat da ci am defet mbokk yi moo tax ñoom ñaa ma boole loon ndax sama doar maa ngi fi am ki nga xamante ni mooy Kognan su ma nee Kognan 2 nag xel yi dem ci boom bi xonk yi su ma nee Kognan xel yi dem ci am na loo xamante ne andi woon na ko waaye li mu andi woon euh, su ko xoolee dama sama xel dafay dem ci Inde ndax loolu mu takk man maa ngi ko doon doog gis kaw waaye sama góos maa ngi mooy xeeru Ngor borom Olympique de Ngor borom Yoff jàpp Ngor foofu yëpp. Euh, ki nga xamante ni mooy Xeweul Ngor moom waaye Xeweul Ngor nag defe naa ne ci biir géej gi lañ koy gis te nag euh, ma ànd leen fii ñu bëgg a jàmmaarloo ñoom ñaar waxtaan waxtaan seen kay làmb waxtaan ci li nga xamante ni jot nañ ci jógee ma bàyyi ki nga xamante ni mooy Xeweul Ngor mu nuyoo ñëweel waxtaan wi Xeweul Ngor nuyu naa la. waaw maa ngi lay fay Ouzin ginnaaw auzu billaahi mina seytaan rajim bismillaahi rahmaani rahim ñooy sant yàlla bu baax julli si yonante bi sant suñu ñaari waajur di suñu waajur bu jigéen yàlla bàyyi ko ba fekkee suñu njariñ di ñaanal suñu waay bu góor fi mu tëdd gënal ko fee mu jógee di wax jërëjëfe Baye Niass jërëjëfe Baye Niass jërëjëfe Baye ñu ngi koy sant lim ñu defal amuñ fayam di leen nuyu ñu nekk ci plateau bi yëpp mm. suma garan yeeg ñëpp maa ngi di nuyu di nuyu champion bi toog nii suñu mag bi Tonnerre de moom waaw yàgg yàggoon ngaa bëgg ba moom xam la moo tax mu nuyu ko parce que champion la te borom baax la barki alxuraan maa ngi koy door a gis tey mais mosuma dégg ci moom baat boo xamante ne dafa jéggi yaa ngi koy door a door teg bët mu ngi nii wallaahi mais mosuma dégg ci moom baat bu jéggi kon dama koy nuyu jox ko war ma jox ko cër di nuyu aussi Kogna 2 moom tamit champion ndaanaan la parce que làmb boo ci demee ba ba ba ñëpp xam ne diw mooy diw rek foo romb ñu ne diw a ngi nii rek ndaanaan nga. Mm-hmm. waaye bari na ñu yuuxu ñoo xamante ne toj ñu fen te buñ taxawee naan man maay diw te gaar yi xam ne yow la diw kon moom ndaanaan dañ koy nuyu aussi di leen bëgg yéen ñëpp xama di nuyu waa Ngor gi ma jugee. Mm-hmm. di nuyu Wakaam Yoof seen doom moo toog nii di wax la géant di Cap-Vert waaw maa ngi bëggee ñëpp di leen nuyu bu baax a baax. di leen nuyu bu baax a baax moom xew ngor waaye duma ci wét benn yoon damay ñëw ci nga xamante ni mooy Kogna 2 nuyu naa la. waaw maa leen di fey di leen nuyu bu baax a baax Ousseyn. ajal micro bi. xam nga di nuyu caméraman yëpp di nuyu sama mag tonnerre 2 xam nga avant tout balaa ñoo ñëw on subila bisimilah yàlla jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba. jaaraama maam si Ibrahima Fall waa di ñaanal isaab ñu ngi jub ci magal gi ñoo ngi ñaan yal nañ ci yàlla yóbbu jàmm ñu jëm magale ko ci jàmm xam nga di ñaanal sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér mhm. ak mboolem julit waaw maa nuyu nag dund Bawol maa leen di nuyu ñoom ñëpp xam di nuyu waa tubaatul bu baax a baax waa Newraan waa Sambaay Njon Seeseen Barba ci la juróom-ñaari ci la juróom-ñaari njeefin yi maa nuyu ñëpp xam bu baax jëlee Tarkinda maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax sama doomu ndey borom Italie di nuyu Babou saar xam nga di nuyu ñoom Baye Massamba Niang laay bébé Dankebe maa leen nuyu ñoom ñëpp bégaay doon ngénte quoi maa ngi koy ñaanal yàlla na doom ji dem xam nga nit bu ñëpp xam ci àddina doom bu barkeel maa ngi koy ñaanal ndax nit ku baax la damay jàpp El Hadj Sarr ñoom caat maa leen nuyu ñoom ñëpp xam nga di nuyu. tund kolobaan yëpp maa ngi nuyu ñëpp bàyyuma kenn di nuyu jaagate fag jaay xam nga di nuyu baa jëli kolobaan sañse séeri maam Bousso maa ngi koy nuyu bu baax xam nga dafa xaw di nuyu Babou Sarr maa ngi koy bu baax borom Joal di ko sant di ko gërëm Malick maa ngi koy nuyu bu baax a baax yokkal kàddu gi di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp Tonnerre di nuyu Tonnerre sama mag bu baax di ko ñaanal jàmm Koña boog maa ngi juum sax kooñaa da ngaa tiit wala lan tiit ma yàgg toog ci plateau ma du ma tiit. ma ne ma waaw non plateau yu nga daan toog ak bii du benn damaa xam ne ñëw fi mu li ngay wax kii sax mënu koo dégg. non maa ngi wax de pourtant. Hmm. maa moom ay xale lañ ko waa dañoo yar. mais damaa dégg euh, yow ak yow ak yow ak yow ak Tonnerre lu ngeen bokk. Tonnerre ñoo bokk ndey a bokk ndey ak baay. maa toog ci moom maa hmm. mais moom nag dafa gàtt ndax moom bi mu ba léegi kenn dégg ko fenn toog na fi kaas ay wàllum ikiri ba léegi kenn déggaatu ko amul combat man mbëri daal jaaxal na da dégg koo xamante ne danaan la ñëpp dañ may daw koo seeti mun na ñëpp dañ may daw ñoom ñëpp buñ leen di daw kan mooy bëre. non moom ñu ngi ko doon wax ay combat tamit comme gi nga saison bi dafa làng bu parce que lamb ji da ngay jékkee-jékki ñu wax combat promoteur bu corona bu dugaatee dañuy ñoom ñëpp dañuy reculer parce que am na loolu saxaay doo ko dugal ba pare toog di xaar quoi. il faut dugg si ci lamb. man fee 2018 laa dugg ci fin 2018 2017 laa jëkk a bëri fin bi ci laa bëri def 10 combat kon mën naa ne 4 nga def ci làmb. 4 ans laa def ñaata combat nga def. di combat laa def. ñaata victoire. 8 victoire. 2 défaites. Hmm. kan ak la daan. man kii moom daan Wos Jàmbaar eh, ak Ronaldinho. Wos Jàmbaar Ronaldinho. balaa may ñëw sax ci loolu parce que ñëpp dañoo gis def victoire yi dinaa ci ñëw lan moo dugg ci Wos Jàmbaar bi nga dugg ci Wos Jàmbaar Wos moo la jiitu ci làmb moo la ëpp doole la moo la dugg loon ci Wos Jàmbaar. mais xam nga boo nekkee xale. ne ci yoon di bëri di daan. xanaa bu ñuy jël avance bi euh, Tonnerre yëg ko. Tonnerre yëg na ko mu ñoom Tonnerre xam na xam na li man li ma capable te xam na li ne ci man parce que man man te bu ma tëb rek bëri arène non non man avant may dugg ci arène dama am tour door a dugg door a bëri arène parce que dama bëri tournoi ñu sélectionné ma CEDEAO ma dem regroupement CEDEAO Père Ambra Sarr woo man ne fa def ay suur CNG euh, Léopold def naa fa ay fan jógee foofu noonu ñu sélectionné a drapeau chef de l'État ma dem éliminatoire daan moroom yëpp. man mi may bëre ko jàmbaar man ku ma yoon bëgg ni ma ko jàmbaar mën naa yëngal du ma gëm parce que jamono yi noonu kuy kontaan ñoom fanaa bi mais xanaa ñooñu xanaa ñooñu xamuñu woon jàmbaar bi ngeen taxawee bi ngeen simee ko ñëpp seen xel mi commencé naa ñaw dayo bi par rapport taay bi ñu xoolee ñëpp xam nañ ne wër jàmbaar mu ëpp doole non mën na ma ëpp doole quoi mais man xam naa man li ne ci man parce que li ne ci man maanaam maanaam ñi ma dañu gis seetaan ñi may moo tax man man ñoom ñoom duñu yàlla moo ñëw ak mbiram rek te bu ñëwee dañ koy nangu mais man mbër man maanaam li ne ci man moom mooy poussé sax ba chaque combat li ñu may wax teeyal wala bul def lii parce que man xam naa sama bopp te xam naa li ne ci man. mais est-ce que nekkul tamit est-ce nekkul euh, ñi lay tànnal nga xamul parce que su ma juumul da nga tegle deux défaites hmm. def nga huit huit combats huit hmm. mais deux défaites yi dafa teglantoo. dafa teglantoo waaw. lan moo parce que victoire dafa teglantoo woon xamoon naa ne yegam yegam défaite mooy ñëw ci kanam. bi nga daanoo jóge fa jëli ki nga xamante ne mooy Ronaldinho yéen ñaa ngeen def combat bu neex mu daan la. Hmm. bi nga paree lan nga ci jàngat. non bu ma ci paree dama ci sant yàlla jàngat ci tamit lu bëree bëree bëri sama carrière parce que Ronaldinho maanaam yàlla mooy jox nit nit kii day yóbbu ndam tey. déet bu fi ànd maa ko mën de. non non ma maa ko mën la daan mënoo ko. mais boo xam ne waroon na ko daan. daa fekk moom ma. arbitre bi sifflé na Ronaldinho. ma taxaw leewantoog moom. Mhm. leewantoog moom xool ko defut benn réaction ma dox ci gaam. Mhm. fekk ko fi taxaw. muy arrière aussi saako yi cote si waale mën na ko bëri ak moom ci kaw saako yi bu la songee nga génn. ku wax loolu. cote sem moom. na ko bëri demal ba ci saako yi. nda ko bëri ak moom ci kaw saako yi yoon. téyel micro yi bu baax beneen làmb bu que tey Awa Malika bi may bëre ak la songee moo tax saa yi ma ko dàqee ba mu dem ci saako yi damay arrière xaaral ko ci digg géew bi man képp ku ma mos a bëreel man kenn benn amateur mos a seetaan koo ñaar dañ jàpp daan ko daa juum mu amul benn mbër boo xam ne maa jàpp juum am na nga rectifié mais juum juumaat mais juum juumaat sama combat Ronaldinho egg naa ko man foo xam ne nii bi ma ko takkee bi ma ko tegalisee dafa yuuxu pour man tëdd na ma bës ndekete des na bi ñëwaatee man def naa ko loo xam ne waroon na ko daan moom par rapport ak li ma daane dafa roje ko rek ma def kaa bi yomb def nga ko loo xamante ne war na cee daanu. Mm-hmm. man su ma déggee foofu maanaam doole ji dafa des. non du ko ci doole. parce moom dama ko dégg mu ne euh, ñëpp nee nañ mën na bëre mais dafa manqué woon doole dem na wuti doole ñëw na. bi mu ñëwee prouvé na ko sa diggante yow ak moom. xam nga doomu aadama yi moom seen i bët lañ yor ku liggéey rek xam nañ ko man combat bi ma sumé ko amateur yëpp joxe nañ loo xam ne kii dafa liggéey ci combat parce que combat bi Gambie laa ko préparé 4 mois daj ci lu métti lelu ci combat bi daj li nga def de kenn mësu koo def open press su guddi. 21 <laughs> heures ba minuit wala 1 heure du matin. kenn mësul gis combat bi combat bi dama ko pare woon au sérieux au sérieux mais combat bi li mu yàqu moo bëri. combat bi jàpp nañ ko trois fois yoo xam day rapporté te xam lu baaxul ci mbir mu ndaw day metti combat bi dañ ci soon daj cee coono saa yu rapporté waatee lu ñu defoon benn ñu nekkaat à zéro commencé waat ko. gis ngeen saa bu report saa bu yàqoo ñu ñu commencé waat à zéro mbir mu ndaw waajam dafa xaw a metti su ma jógee foofu damay ñëw ci xeeru Ngor. xew nga ñaata combat nga jot a def. treize. treize ñaata victoire. neuf. neuf victoire ñaata défaite. quatre quatre défaite. Mm-hmm. ken nga dugg ci làmb. 20 euh, avril 2014. 2014 waaw ah dafa mel ni xaw leen sooy en 2014 ba léegi 6 ans wala 7 daal. waaw 6 ans 7 ans. 6 ans 7 ok euh, ban combat moo la gën a neex ci combat yi nga jot a ba yi nga bëreegum. yi nga bëreegum. ajal micro tuuti. sama combat ak deux gars. sa combat ak 2 Giga. waaw lu tax ah, parce que dama see daanu. nga daanu bi neex lu tax. parce que li ma jàngal moo bari. xam nga buy neex mënoo jàng ci lu neex. lu mhm. neex kenn du si jàng lu naxar la ñuy jàngee. waaw nga bëree combat boobu bi mën laa neex. waaw parce que dama jugee si dama jugee si défaite sama combat ak dem si yàlla si Papa Yada. Mhm. metti torop ma ñëw di bëreeg kii 2 Giga ne yaa maa ko man ma ñëw ñëpp ne ma yaa xam man yaa ëpp doole arbitre sifflé ñu taxaw ma dóor ko coup dal ba sentir na coup bi dal na may jugaat di dolli mu remplacé ma ma bañ bañ bañ mu kottu ma yéeg ma mais bu ñibbee dama si jàngat kombaa bi neex ma trop ma xam ne nit di nga ko mën ci làmb mu daan la. yaa mën deux Giga. waa bu ma ko waxee du du du du mën a neex a dégg parce que daan na ma. mais yaa ko mën yow. li non non man dama ne bu ma ko waxee du neex a dégg parce que daan na ma moo tax du ma ne maa ko mën. mais combat boobu daal combat bu ma neex la parce que am na lu ma jàngal. bi bi nga jógee ci combat boobu combat bi topp da nga daan wala. bis topp maa daan bàcc séeraas numéro 2 waaw séeraas bi nekkoon ci kalaaf bi daanoon ay bulldozer ak ñooñu. Mhm. moom laa daan jóge fa daan boo yëmbal. jóge ci boo yëmbal ci la ma booy Diop daan grand combat bi passé. mais dama gis sa diggante ak boo Diop nga ñëw euh, boo Diop euh, am na dayo bi tolloo ngeen mais yaa xaw a sut mais bi nga ñëwee ci biir géew bi tamit dafa mel ni da xaw a naawu ci biir bëre bi. non du naagu c' est juste que ne. combat bi dama xeexu ko coup bu ne combat bi dama ko préparé préparation bu metti parce que man du du la may du la tagg sama bopp mais dama am ay moyen ci làmb. waaw parce que gis naa bi nga ñëwee euh, promoteur bi sax joxu leen ay blouson waaye euh, xaw ngeen a jënd ay culottes yu nduroo wut ay t-shirt. affaire bu nice ngeen sol ko ñoom ñëpp nduróole ko. dama am ñu may jàppale. Mhm. ñoo xamante ne du làmb rek lañ may jàppale. man suma assistance bi ngay dégg. suma hmm. sponsor la. ki moom suma assistance doctor Niang suma ndijaay la. da nga waaw. Oh. dañ may dañ même bu dul làmb dañ lu ma bëgg dañ ma koy defal. yaa ngi comprendre. ah kañ ngay wax ñu ñëw sponsorisé ñu. non loolu du problème. incha allah dinañ ci taxaw mais combat bi dañ ko préparé de telle sorte que ne lu ma bëgg dañ ma ko dañ ma ko doon am kii combat mu ma fekk ci si yoon maa ngi nekkoon mbuur si yoon bi laa ko seetaane maa ngi nekkoon yoon di dem. combat am parce que mercredi la woon su ma jiw ñëwagum combat bi yi ma ci daj. parce que dama ko préparé tabaski bële passé. moom moo la njëkk a bëre. waaw moom moo njëkk a bëre tabaski bële passé la combat bi taxawoon. une semaine une semaine avant tabaski la joxoon avance. combat bi ñëw ba ren xam nga loolu dafa metti si xale bu ndaw ngay entraîné man yàlla dafa def liggéeyu ma dara. mais nag Covid bee tax Covid bi moom. li man liggéeyu ma dara damay tëdd weer bu dee ñu jox man li ma soxla entraîné lañ ma sant tëdd suma kër xam nga ñu ñëw combat bi ñu daj ci ay coono kon bu ma ñëwee ba si géew bi dama war a appliquer parce que làmb mën nga ñëw war a daan daanu. Mhm. parce que du force da nga war a daan. mais li am important mooy boo ñëwee defal fulla ak fayda ku la xool xam ne kii kat li mu warloo woon ci làmb ji def na ko. Mhm. mais ñëw ci làmb di wane ak tapet wala ñëw ci làmb di wane ak ñàkk jom man loolaa dul def man su ma ñëwee damay tuus mu neex damay duy stade bi damay bëre fulla ak fayda su ma yàlla mayee ndam damay sant bu ma yàlla xañee damay sant man loolu laa man daray àdduna kayewul sama bët. mais dama gis nga nga nga jàppante ak Boy Diop mais Boy Diop daan la jël bu rëy. Mm-hmm. nga am loolu bett trop. waaw parce que action bi ni ma daane la parce que dóor naa ko ay coups dal dóor naa ko ba xam ne kii newu fi. Mm-hmm. ma daw jël jël tànk bi bi may bi may jël tànk bi dafa dóor crochet droite ma esquive parce que man boxe laa njëkk a def ama bëri bu may dóor maa ngi koy gis. mu mm-hmm. dóor crochet droite ma def esquive jàpp tànk bi mais benn loxo laa jàppee tànk bi parce que tànk moo ëpp loxo. benn loxo mënut jàpp tànk. dama jàpp tànk bi nii muy téye suma loxo ci kaw léegi ma koy ba xam ne mënu maa liggéey foofu ma bàyyi may bàyyi tànk bi may bàyyi tànk bi pour pour yéeg ko jàpp ci ngembali ci ginnaaw parce que boo xoolee action bi bàyyi naa tànk bi ba koy jàpp ci ginnaaw ci ngembali pour yéeg ko foofu bu ma ko yéegoon du ma mën a liggéey kon il faut damay cotte deuxième pied damay koy cotte tornaat deuxième pied bi ci ginnaaw pour mën ko daan mais dama yéeg mu déclenché mbotu taaxali du mbotu du mbotu daan mbotu taaxalikoo la. non mbotu mbotu daan la parce que bi mu la mbotee. Ah, mbot ma ku xam bëre dina xam ne mbot boobu mbotu taaxalikoo la. daa bëggoon nga bàyyi non dañ am na action fu lay toll da ngay mbot pour ngeen xaajaloo ku nekk taxawaat mais sama loxo bi mu téye moo tax mënuñoo xaajaloo parce que damay daanu force bu téye sama appui. nga daanu jàpp sa gémmiñ. waaw parce que damaa xam ne damaa daanu jëlu ma bett parce que damaa xam ne kii ma daan nii barke Cheikhou Tidiane mënu bu bu dee logique rek man maa ko mën. mais ñoom dañ laa nenu yow duggoon nga fa 2 giga daan la 2 ñëw andiwaat boo jub boo jub daanaat. waa làmb bi moom loolu ñu ànd làmb mën nga dugg si écrit 14 fois sax daanu 14 yëpp ma jox la benn exemple booy ñaan ñaata yoon daan waa géej waay. bàyyi na waa jéem na mais terewul daan waa passé waa bàyyi na waaw loolu la rek làmb dafa am da am da am yoon booy def nga def ko mais ñoom ku ma ci bëreel boo paree di nga xam ne ki ma doon bëreel kat ndaanaan la parce que dañuy jëflante di nga xeex di nga bëre te bu ñu waree bu ñu waree am combat di nga li nga li la war di nga ko def parce que man combat dama koy jox li mu yelloon damay mobiliser dama lay forcer pour nga mobiliser. parce que pour man bu ñëwee bu ñu ñëw stade promoteur tëgg ñu xam nga dañu war a ñëw pour bés bi doon loo xam te dafa neex combat bii passé nii dama ko bëree par regretté ko. lu tax parce que dama si dama si mobiliser loo xamante ne sama support sama sama sama adversaire mobiliser wul xaaju xaajaatu xaaj bi. ba pare ñëw mu daan waaw. barke Cheikhou Tidiane andiwu fa benn kaar bu fa indee benn kaar si la yem stade bi mooy bëri grand combat bi bu mu fa desee lii nekk stade bi yëpp ngor la jógee après dama ko regretté parce que dama xam ne war naa mën a bëre ku ëpp coow loolu. dama la andil xale bu am coow. waaw ndaanaan la kii nga kii toog nii parce que xamala moo tax Mm-hmm. nit ki boo ko bañalee ndaanaanam rek doo doon ndaanaan non bëgguma xam nga boo ko taggee fii mu toll nii bu nga tagg ko non a ñeewantal moom a wax ma tricher du ma lu nekkul ci man mm-hmm. su deful woon dara dama nekkaan booy defoo fi dara barke Baye Niass awma lu may làq-làqal ci doomu aadama mais bu nekkee ndaanaan dama koy nangul ndaanaanam moom su ma nangulul ndaanaanam après moom la mais man dama koy nangul parce que loolu mooy jullit jullit da nangul moo ka moo man waaw yàllaa ko xam. déedéet. déedéet. yàlla moo xam ku mën xamala moo tax ma ne yàlla moo xam ku mën. Mm-hmm. parce que ku nekk sa bopp nga xam mais yàlla moo la gën a xam sa bopp. non waaw moo tax may la yàlla moo xam nii man maa ngi ko gis sànq wax dafa ni ku xaw a tiit nanguwul wax. non tiit ak koñaa mi ma ak tonnerre bi ma xam koñaa bi ma xam. waaw koñaa bi ma xam mu ñëw ci seddal baat koñaa ko ko xam ku ne yow xam nga ne. du seddal baat fii ñëw ñu pour signature de contrat. non non dafa ndànk mais wax moo leen fi andi wax ma leen fi ànd ñëwuñu pour raayante wala ñëwuñu fi. ah instant waxuñu ni lu ñuy def nii non kay. waxu leen ma la laaj nga ne ma. Mhm. booy man ak moom kooku man maa ko mën. dama ne la du man ak moom parce que bëgguma bëre ak moom. maa ko mën. waaw peut-être yow yaa bëgg yóbbu foofu yóbbul foofu. <laughs> man lu ma wax yow ak kii kan moo mën. non li mu wax yàlla ko kan parce que koo bëre la wul kenn kenn xamul ko mën. xam nga lii moo tax làmb ji. waaw dégg tey da ngay toog boo may teg say nit ah xeeru ngor ñi xamante nañ bu baax ma dem nañu open presse booba li ko fekk champion la. xam nga gis nañ la ma dèjà waa déglu ma man laa man góor mënu ma kaw ba ci suuf nag laa la wax. parce man xam ki man. waaw loolu am na ci plein droit. góor gu yàlla bind ci àddina. mënu ma barke suñu faalu yàlla xam na li may wax parce que dafa am man xoolal man xale bu ndaw laa. yaa ngi moom kan yàlla moo xam parce que moom man xaw ma seetaan nga ko parce que yow mënoo ko dëkk te dugguloo ci làmb. gis nga dem ba léegi. parce que yaa ngi dégg nga ne man euh, euh, benn saison 4 combats laa fi def 2018 laa dugg ci làmb parce que yaa ngi woon yaa ngi woon say performance di jot a def ci làmb. Hmm. yàgg moom kat moo dàq bëre. man de boobu la boobu la laajee dàq bëre. man déggoo li ma la hmm. kii. waaw xaw ma nag moom ko dàq bëre man sama bopp laa xam sama mën a bëri. teel bi moom xam nga ku ne am na te làmb yi bëri bëri ku ne am na ku ne na sa foor foor bi nga gën a mëne ku ne da loo gën a mëne kan man. waaw man bëre lépp laa ciy def. fan nga ci gën a faible. kan man. waaw man man xam lu ma doon bëree. man tànk laa gën a mën sama àdduna. non dama laa laaj. lan nga ci gën a feebalee mën nga lépp lan nga gën a. faible ci bëre man bëre saa jàpp ngeen laa doon bëree. mën nga xeex. damay xeex damay man sama combat yaa ma sa gis ku ma duuma wala sama combat bu bu bu man. kii de nee bu son combat taxoon mu duuma la. man bë man dama lay wax waaw ma rek baal di mu wax yi nga jot a bëri yi nga a bëri kon nag. a métti ay adversaire ci làmb ji li ma lay wax seetlu ko samay morom sama catégorie tànnu ma paa su ma neexoon damay tegle sama dynamique victoire dama jëlee ay taxaw di comme ni ko ñëpp di defee est ce que man man sama gis sa yéen amateurs yi man dañu may seede man man fu ma nekkul man mosuma bëre di jéem a tànn sax koo xam ne day génn sax ci làmb man ba may bëree ba tey wës jàmbaar bi ma ko jëlee ñëpp dañu ma ne kii ma jëlee ko ma jël ko spécial Fallou Ndiaye ma ko barki Sëñ Fallou mosuma bëri combat bi ma koy jël Petit Lava moom xam na la dëkk Petit Lava boobu 3 combats la ma 4 combats 4 victoire ku ci jàpp baat ma koy daan laalu ma ko sax man daal yi nga may wax nii yëpp jot na jàpp. man xeeru ngor man moom man xeeru ngor laa wax. bàyyi li ma limal ay xeeru Dacia ak. mais xeeru ngor bi dafa jóge ci defet kii xam na ni man moom làmb la moom xam na ko mais day def nii pour maanaam. boobu dalaa ñëwul. non non kii kii kii kii ñi mu bëre ñu mopp doole fuuf te ñoo ma ëpp gabari kon ko am lu mu ragal ci man. léegi la moo tax nga ne sa diggante yow moom combat day nekk di def nii. a bëri mais il a def nii ay kii du ma moromam parce moo ma jiitu ci lam tuuti. seen combat dafa am ñu ko doon dox. non kenn mosu ko dox. mais gars yaa ngi ko doon wax. mais moom bi ma avant ma jël was jàmbaar woo nañu ko ne ko yaa kooñaa mu ne bëriwu ma kooñaa. moo tax nga bañoon ko. waaw ah, parce que spécial lañ ma doon proposé te grand combat laa bëri daan du ma duggaat di bëri spécial. bañoo woon bëri ak moom mais spécial bi nga. instant boobu noonu su bañu ma woon moom mais grand combat laa jugee bëri daan du ma wàllu wëtiku di bëri spécial. am na beneen promoteur bu ma proposé woon spécial bu gën boobu. mais combat Franc Bébé a yëg. parce que boobu bëreegul grand combat peut être moom dina ko arrangé mais xam nga man dama am staff. Mhm. man damay bëre dama am. ñoo amul staff non man sama staff laa wax man tey bu ma bëggee bëri bu ma bëggee dara sama staff bañ ko mënu ma koo jël. est ce comprendre am na avant combat am na beneen promoteur bu ma woo proposé ma beneen mbër pour benn spécial. nga nangu sama manager moo ko njëkk a mu bañ ko encore moo ko njëkk a bañ sama samay mbokk tamit bañ ko. mais yow yow yow da nga bëgg a def sa bopp mbër mu mag. Ah, ah. ay spécial ay ay ay ay ay staff fii. dégg ay grand combat ay spécial gi nga loolu moo yàq làmb ji da ci bëri spécial ne dootul boo bëri di grand combat am na bés yoo bu ñu dugalee ne la spécial. wala huitième combat sax wala war a dem nga bëri parce que ji loolu moo ko yàq waa léegi gis xam nga wala te léegi site internet yi ñoo jël mbër def ko champion te ñun ay médaille d'or lañ yor ay médaille d'argent dañ ko oh. jaayante dem boo demee CNG suñu doom fa fi ñoom dubalee dem fa dem yàlla na ko yàlla yaram xaare ko àjjana ñoo ko ñaan suñu papa jooju noonu amiin mais boobi boobi mu ngi wane boppam de waaw mais noonu la mais man xam nga tamit mooy li ñuy wax rek làmb ñëpp am mën nañu am chance nekk ay lutteur mhm. mais ñëpp mënuñoo am chance nekk ay champion ñëpp mën nañu am chance nekk ay ancien lutteur mhm. mais ñëpp mënuñoo nekk am chance nekk ay ancien gloire mhm. yaa ngi comprendre Modou Lo tey bu bu màggitoon ak Balla Gaye duñ dégg ancien gloire parce que mosuñoo sol raaye feneen fodul Sénégal mhm. yaa ngi comprendre am na ñoo xamante ne demuñ toll ñoom fi ñu toll te bu ñu màggee dañuy dégg ancien gloire parce que sol nañ raaya bi dem feneen fodul Sénégal dëgg la ku génn sol raaya bi dem feneen fodul Sénégal kooku mooy ancien gloire moom li mu def dafa am chance bi ak may yàlla ak lu mu man mais man na mën na def loolu keneen deful loolu ba am loo xam te ne si làmb moom amu ko. Mhm. làmb noonu la demee rek. yaa ngi comprendre mais man du ma waxuma ne damay bañ a bëri spécial waxuma ko yaa ngi comprendre parce que am na bés yoo xam te ne boo ko bañee daa fekk bëggoo bëre. dëgg la man aw ma problème mu bañ a bëree wala nangam mais tamit dama am staff man samay combat yu baaree baree bari du mën a lu bari lépp sama manager moom damay wax rek ma tontu su ma demee sama staff man maa leen di forcer damay jël nangam ñu wax ma leen dañ jël. parce que mbër bu bëree mbër la bu bëriwul nekkatul mbër. yaa ngi comprendre man opté ma lu dul làmb à làmb defuma leneen dafa ma nekk dañ ma yaakaar gox yu ma nekk barki alxuraan. mais nag mais nag mais nag. mais nag làmb day parce que làmb wéyul. Mm-hmm. parce que doomu aadama nit làmb liggéey ngay amal sa bopp parce que tey carrière mbër mm-hmm. yàlla rek la mën a sàmm contact ak erreur la. Mm-hmm. maa la ko fii tey contact yi mën nga contact ñu yéen la dóor la sa loxo dam dóor a jég. kenn mënatu koo faj. wala sa tànk débuwaat léegi boo jàppati dara foo jëm. non ñun ay dañuy business mbir maa leen di conseillé nañ ñëpp dem business yi dem liggéeyi. voilà doomu aadama da ngay liggéeyi. loolu maa koy conseillé sama mbokki mbër yi parce que xam lan mooy problème bi. carrière wu làmb mbër yàlla rek la mën a sam ak wax ne lii nga war a am sa àddina. yaa may dégg mais tey bul bul bul jàpp ne tey xoolal man sama ko ba xam ñaata mois laa ko laa ko préparé. 9 mois 9 mois ci booy bu ndaw parce que at bi ñaata la 12 mois. Mhm. ñaata ñaata mois moo ciy 3 mois. léegi waa 12 mois ñu fay la ci benn 800000 wala benn 700000 nga bëgg a préparer loolu xanaa loolu boo doon def journée téeméer sax. jeex na bu yàgg. ah ñu waxante dëgg. li mu li mu wax dëgg la. parce que làmb kese maanaam fajul soxlaay kenn. Hmm. man làmb bu ma fayee balaa may fayati yàllaa xam. mais man damay business man ni may gise nii def naa formation garde de rapport maa ngi sama carte professionnelle mais dama nekk ak ay nit ñu ne ma booy ñun bëgguñu nga liggéey guddi bëgguñu nga def nangam toogal nga entraîner. am naa métier su ma jugoon tey dem liggéey damay dem liggéey yaa ngi comprendre liggéey naa mécanicien scooter su ma suñu gàllee sama mag mécanicien la liggéey naa ko ay ati at est-ce que comprendre mais xam nga tamit bu fekkente ni danga nekk ci dara nit mënal la dara yow yaa ngi yor sa métier métier mënoo ko fàtte hmm. mais yaa ngi nekk si dara nit mënal la dara ne lii laa bëgg nga defal ma xam nga resal la lu bari da nga koy def te ñafe parce yàlla rek moo fi ne nit nekk na ci làmb defaluñu ko dara kenn resalu ko dara mu nekk champion hmm. nit nekk na ci kon yàlla mooy mooy sàmm jaamam quoi mais ñun ñëpp dañuy am dañu am yaxin am am xel mu sell am am xol bu rafet jàpp ne dinañ si génn te ñu ñëpp dañu si génn incha allah parce que même bu dul dara ay adversaire lañ mais làmb famille la tey ku nekk yaa ngi yéene sa morom même bu dul bëre bi nga dem may say mbokk am teral sa yaay teral sa baay ku nekk loolu nga yéene sa morom mm-hmm. kon nag bu dee loolu nga yéene sa morom làmb la pour benn saan mais man man dama doon nit koo xamante ne li may li may dund si biti man loolu laay dund si biir man foowuma dama direct li may wax rek moo nekk ci man barke Cheikhou Tidiane kii ndaanaan la billaay wallaay mënuma koo bañ. non parce que comme toog naan bëgguma bëreek moom su ma ko waxee. Mm-hmm. damay wax loo xamante ne tey lu ma neex la sama biir xol di ko wax am envie di ko wax mais tey bu tegee palmarès ma teg sama palmarès soriantew ñu amoo fu làmb fu boole nañu. Mm-hmm. yaa ngi comprendre mais xam nga tey làmb mën nga làmb mën na laa boole kii nga bëgg kële moom mën na bëgg ku ma gën. non mais moom yow la bëgg. waaw moom nee na ma moom déglu rek tugg na du teew ñu nat ci ëkk moom nee na ma maag xew nga combat bu neex la te bu ñëwoon man ak moom ñu ñu ma ma jël comme avance bi ñu bëre nga ne ma bi ma la waxee ne sa waay na bëgg naa nga ne ma kooku du maag moom maa ko mën fuuf su ñëwee ñu bëri maag moom mu doo ko ba mu tëdd. li ma la wax lu ma gëm la mal loo xam te dama koy natt. est-ce que xam ne droit xam nga bu ma waxee nee naa loolu waxu la rek. fii xale bu ndaw xale buy dóor ak jóg sax koo xam ne bëreegul sax xale yu ndaw yi foo sax ci mbedd bi bu ñu bëree seen morom naa maa ko mën maa ko mais kii jàppaloo ni kii moo la mën kan kii man nee la waxuma la kii non ko bu baax mais dama ne man góor mënuma man koo ñaa góor gu yàlla sak ci àddina mënuma góor du yërëm góor lu leer laa mais est-ce que bu ñu la andiloon avance xew nga duñ ko yóbbaale waaye bu ñu ma ko joxoon fii ci ma man dama bëriwul combat bu yomb tànn may paa man combat yi métti laa bëri wallaahi man soxlawuma sax bëri sax combat bu yomb xam nga tamit moom li mu wax nii day mel ni man lay waxal quoi. bëriwul ak paa non bëriwul ak paa man cocktail samay combat treize combat laa bëri mën naa la limal ñi ma bëreel ñëpp. non non xeer waxuma la yow de. man man suma combat. booy def dafa ne buggul combat bu yomb maanaam booy booy bari na ci ñoo xam ne dañu leen jël jëli ay ay naan ay tafaage lañ may proposé. bàyyi tafaage deux. <laughs> non non tafaage lañ gën a yàpp ñoom ku jóg rek ñu tafaage laay la nañ ma ko jox. yaa may dégg comme comme booy comme dem di tànn ay man man nañ samay combat yëpp teg leen ko samay morom ñu am doole laa bëre ñoo xam ne dañu ñëw pare fépp comme man ñu geer man loolu laa gëm. parce que teel micro bi man man man man déggoo ma la moom euh, kii am na benn benn mbër bu ne seen igri men melo. Mhm. man moom daje nañ tournoi sama xarit na pour la xaritu booy bawol dañ daje nii di waxtaan ci booy bawol dañ daje tournoi dañoo bëri ma daan ko moo xam ne men melo kooku def na 10 combats xaw ma. Mhm. arène te di mbapat ba tey yaa may dégg. Mhm. mais comme comme ni ñuy waxee man. dama doon jël adversaire bu yom xalaatuma ko sama àddina su ma ko namee def ma tekki sama ngëm sànni combat bu ma bu ma duggaat ne ma yow da xaru. kii nag tudd la mais boo xoolee ba xool bëgg na bëgg ak yow mais moo tax xew ngor la moo tax nga bañ koo ñaan. non du question la bañ waxu léegoo ma sànq nee naa bañu ma ko mënu ma ko bañ mais man dama am staff tey moom bu fekkente ne promoteur pare na pour dëgg suñu combat bu woowee ki nga xamante ne moo yor xeeru ngor kooku bëgg na combat yi moom parce que man. non mais nag mais nag yow. tamit tamit parce que fi mu toll nii kaay ma wax la benn affaire. waaw tey dinaa ko wax Sénégal yëpp xam man sama combat Matar ñi mel ne Matar Ndiaye Matar lu mu wax loolu moo ci am. Matar Ndiaye sama combat lu mu ci wax loolu moo ci am. musuñ la musuñ la propose du nga ne su ma amoon. du moom Cheikhou Tidiane Matar Ndiaye sama combat lu wax loolu moo ci am du ma ci teggi dara kooku sama papa la. séq nañ loo xamante ne génn na làmb man ak moom. billaahi wallaahi wa taala suñ ko woon tey mu bëgg ko. billaahi wallaahi wa taala su ne ma diw kooñaa yax kooñaa taxaw na du ma ci teg baat parce que làmb la mën nañ bëre dañuy mayante xaalis benn tàkkusaan pare ku ne dem yàlla kenn la mën a may ndam si ñu ñaar ñu niil ñu ñaar ñëpp mënuñoo am ndam si benn jour yaa ngi comprendre kon benn tàkkusaan la pare ku nekk continuer sa carrière yaaxalu ko dara yaaxalu ma dara yaa ngi comprendre su ma bëréewut ak moom tamit moom bu bëréewut ak man nu ñu toog fi année blanche amul sens mm-hmm. yaa ngi comprendre dafa yaakaar làmb ma yaakaar làmb bu ñu promoteur mais naka ngeen di liggéey olympique de Ngor parce que gisoon nañ ki nga xamante ni mooy Boy Bawol moo nekkoon tête de bi mais gannaaw léegi dafa mel ni bàyyi na làmb kenn gisatu ko kenn déggatu ko naka ngeen entraîné foofu ak kan mooy tête de file bi. waaw comme ni ñu doon entraîné rek comme ni ñu doon rek parce que xam nga tamit équipe boo xam te ne ñëpp ay xale lañ di nuyu Boy Bawol au passage mu ngi fële mais xelam dañul si ñun loxoom dañul si ñun man du toog deux jours wala yow jours yoo xamante ne woowu ma daf may woo téléphone ak man. parce que man la yàlla dogal ma fay bëri ay grand combat am na ñu ma mag nekk ci écurie bi mais nag sant yàlla parce que boo demee ba nekk xale yàlla def tey ngay bëre ay grand combat am ñoom tamit ñoo la jiitu ci làmb nekk ci écurie bi nga fekk leen fa jàngee seen tànk bëre loolu yàlla rek moo ko mën a may jàmm xam nga mais lépp si dañ leen jox cër ñoom man dama jàpp ne ku mag ci écurie bi dama jàpp ne yaay suma tête hmm. man dama jàpp man maa gën a ndaw te ne moo war parce mais làmb mooy wane boppam chaque jour rek man ni ma nekk ci écurie bi tey di bëree grand combat man naa man na booy boo xamante ne maa ko war a génnee mais suba moo may gën a kawe parce que làmb làmb relève la rek tey koo ñaa deux mii ku nekk woon di nga dem ba ne ba ba bay bëre niveau bi sa grand nekkoon du ko gëm moom mii ku nekk di nga am rakk buy bëre ba tollu fii du ko gëm kon làmb loolu la rek mais liggéey mooy lépp làmb bu la kenn na ku liggéeyul mënoo ci am dara liggéey rek mooy maye ku liggéeyul doom lan ngay wax promoteur yi nga xamante ni ñooy tëgg làmb yi ak booy yi nga xam ne dañ fa nekk bàyyi seen lépp ndax làmb wala yaakaar ci làmb loolu leen wax. waaw promoteur dañ leen di lancer waat message rek parce que ñoom tamit gaa ñu leen di joxoñ baaraam di leen joxoñ baaraam mais dañ leen war a wax ngàcce ngaalaama xam la ma dañu war leen wax ngàcce ngaalaam mm-hmm. parce que promoteur bu jël xaalisam fay mbër ñu jékki saa rek ñu ne Covid ñëw na mm-hmm. mu toog bàyyi xaalisam foofu ci mbër mi da fi gis sax mbër moom te day lekk avance promoteur dem joxoon passé na après promoteur yi war ci nekk di courti courti waat imagine ñii dem bisu làmb ñu yàq seen koy teg sa bopp bu doon yow promoteur yi dañoo sonn mbëri sonn nañ gaa mais promoteur dañoo sonn parce que mbër bu dul woon promoteur mbër du am mhm. bu ñu tëggul woon kan mooy bëre kon ñoom dañ leen war a yërëm xam ne tamit ñoom dafa am lu ñu yaakaar ci làmb moo tax ñu ñëw fi beneen promoteur ñëwul ci làmb pour jël xaalis di dugal cent franc am juróom dërëm dañu dugal xaalis cent franc pour am cent cinquante. man de démb tase naag benn promoteur nee na ma saison bii ñu génn perte na cinq millions te bàyyi na. xamala moo tax mu xamala moo tax loolu. nee ma bàyyi kay def naa ko. xamal ba xam boo neen sponsor bu mu amoon yebal ko ci benn promoteur. xamala moo tax loolu parce que des fois sponsor génnewul génne dina génne mais li muy génne génnewul promoteur gis nga mbër da ngay xam sa rôle bu dee da nga nekk ci gox am na noo fay toogee sooy bëri ji bi day fees. Hmm. te stade bu fees dafa neex. nga war a bëri mbooloo topp la moo tax xale yi nii ñun suñu consort lu luñ ñu jëndee jar nañ ko parce que la ñuy dugal stade barki alxuraan nañuy fay ay 10 millions 30 millions dugaluñ ko man sama combat yi passé 1 million 400 laa jënd billet. 1 million 400 1 million 400. te fay ñu la te fay ñu la te fay ñu la fay ñu ma sax 1 million. 700 personnes billet bu nekk 2000. tax na open press cay kaar ñëwagul kaar bu nekk da nga koy fay 20 000 kon ñun dañuy dañuy dundal làmb. ñun dundeew ñu làmb promoteur tamit dañu war a xool boo yi nga xam te ne dañuy rey seen bopp di mobiliser ñu jàppale leen parce que tamit di def sa xaalis te amoo si benn revenu amul sens. Mm-hmm. ñun bëriw ñu pour di jël rek di jënd ay bii après toog nañ ñu ko nañ nañ fay booy yi lu ko jar. parce que Sénégal rek nga gis sport boo xamante ne Afrique bokk nga gis sport boo xamante ne pratiquant bi il est pauvre te làmb ji ñi koy sitaan ëpp nañ ay dix mille personnes. kaw rek loolu fi Baye wax nee na bi mu duggee ci làmb ba léegi boo yi fi nekk. kenn mënu la cee wax ci làmb la jëndee moto bi muy dawal wala vélo bi muy dawal. moto sori na man ay dàll sax jënduma ko ci làmb dàll. ay carax carax yu téeméer. da bëri ba pare suba doo am loo ndekkee da ngay génnee njëgu un million et quelque di ko def ci làmb. parce que yaa ngi bëgg a satisfaire say say say say soppe ñi am te lay bëggee bëgg laa sitaan yi yaa ngi bëgg a satisfaire si promoteur bi parce que moom mu la tëgg teg sax yow def si yow xaalis mais ba kañ war nañ mën a ut solution fay fay mbëri parce que mbër loo ko fay rek jar na ko ku yeewu 4 heures du matin 11 heures mu xëyaat 5 heures mu dem écurie ba pendant combien de mois ah loo ko fay mu dem fayab sëriñ buñ naka a nga wuti ji yaxu dëmm sax mu dem uti yaxu dëmm xamul fu yaxu dëmm waaw dina ko andi ñu ko jox sangul dañ koy jox naan loo ko loo xamante ne leer na ko ne lii bu dul woon làmb du ko naan mu koy naan ñu sangu loolu loo xam ne da ngay romb li ñu di fàtte seen bakken kii de la takk fi mu toll nii bu ñu ko ko joxaatoon du ko takk ci boppam. waaw la léegi léegi loolu noonu ku koy pratiquer ki koy def risque yi si nekk yëpp bu ma amee combat ñu jox ñu jox ñu wax kooñaa ñu jox ma turu kooñaa fu ma xam fu bon yóbbu ko fa pour daan ko. ñu jox la turu papa mag yaay waaw exemple loolu lu ko gën a metti mais kon kon mbëri dañu leen war a jox gëdd ñun du ñu ay dof man li ma gën a bañ ci àdduna mooy ñu naan mbëri ay dof lañ mbëri ce sont des intellectuels on réfléchit bien ñenn ñi non non. ñenn ñi ñii dof ñëpp du ñuy mbër. <laughs> xam nga la moo tax parce que mbër noble la noblesse lu ñuy dund la du loo xam te ne dañuy ñëw fekk la fixé la ko yow yaay dund noblesse mu nekk ci yow. yaa yoon di dund noblesse mu nekk ci yow Kogna naka ngeen di def ak seen équipe parce que fan yee passé déggoon nañu dañuy jël euh, équipe Ndakaar yóbbu ko Faas seet si woon ki nga xamante ni mooy tonnerre 2 jotoon nañ cee waxtaan mais dafa mel léegi mujj naa seey moom ci Faas. non Aiguine Dakar. moom Aiguine Dakar moom du ma ci sori. lu tax eh, du ma ci parce que ñoo nekkoon Aiguine Dakar ñun ñëpp. Mhm. yaa may dégg. Mhm. parce que Fass yaakaar naa tey bu bu see bu Dakar bu see biir Fass. Mhm. ah ñun moom wax dëgg si la bokkuñu parce que wax dëgg ñoo ngi fi ñu war a nekk déglu na ñu war a déglu ñoo ngi suñu écrit bopp parce que yaakaar naa. ban liggéey ngeen eh, mbooloo lañ nekk. kon Eh, ndakaaru ndakaaru ndakaaru ndakaaru dee na ndakaaru dee de waaw nee na nangul parce que yéen parce que yéen parce que yéen fi mu toll nii Colobane ngeen wax. waaw léegi ñun waaw waaw ñu ngi écrit Colobane mbooloo ñu ne ko écrit ah. Ndakaaru deux personnes. ñoo mhm. ñaari personnes. écrit Ndakaaru oh, ñu bu leen xeeb ah. Fass ma la de man maay écrit Colobane mbooloo Ndakaaru laa soqe koo. yaa may dégg mais ñi ma nekkaloon écrit ba yëpp ñu may jàngal lépp ñoom laa àndal ba tey Mm. suñu côté ak ñëpp ñoom laa àndal ba tey di Colobane. nga gisee làmb gaa gaa bi ñu ci duggee yàggul. ak mm. léegi mais naka nga gisee làmb moment bi ni mu doxee. no làmb moom instant bi wax dëgg ca li na ci ñëpp muy promoteur bi muy mbër mi muy amateur bi lépp daa ñëpp la ñu ngi doon jooy naan ay eh, arène nationale arène nationale arène nationale bi bàmmeelu làmb dafa waaw yéen leen rek làmb doon na gën a dox national nit ñi doonañ ko gën a seetaani parce que làmb nag tey boo xoolee soo xoolee làmb xool dëgg dëgg dëgg xam ne li di amateur ay saalum saalum lañu ay kajoor kajoor ma la baana baana yi yaa may dégg mhm. ak man yi yëpp ñooy seetaani làmb ñooy amateur yi seetlu li ma la wax ma yokkal la ci waaw euh, da ngay nekk Dakar da liggéey mm. ba añ ba noppi mm. làmb am nga teel ci sa place. daw esaat Ibamar toog seetaan mu jeex nga jaaya noonu ñibbi. wala muy mais amateurs yi waaw wala muy démb jóg mais hmm. amateurs yi wala bawol bawol yi. Hmm. Hmm. mu ñëw tëjee seen place Dakar. jóge fa daw dem Ibamar daw dem Arène Nationale. yaay doon wax xam nga sama combat bi passé. promoteur bi dañ daje suuru combat Belende bébé Birahim mu jàpp combat bi samedi mu daje suuru combat Moussa Ndoye Sa Thiès combat boobu moo nan na gën a fees Ibamar parce que Ibamar da ngay xool li dale li dale Géejawaay ba Parcelles ba Pikine xaaj gi Colobane lay liggéey Sandaga biir Dakar. nañu mhm. waxante dëgg. Mhm. mu def lamb ji lambu àllarba ma ne koy ma ne ko lamb ji jéem ko nga jéem pexe moo xam ne nga dañ ko def Iba Mar bu fekkee àllarba la amateur bu wàcc ma ne ko parce que ñi ciy bëre ñëpp seen i mbokk biir Dakar lañu liggéey Sandaga lamb mercredi. Mhm. nga def ko arène nationale. tabaski bi waaj sama mbokki bool bool yi saalum saalum yeeg ñëpp nga xam dañuy dem liggéey ay businessman lañu. loolu ko benn engagement nag lam ji jàll bu pare promoteur dama amee rek mu ngi wax lu ko neex ma ne ko benn billet jox nañ ma lu war a mot ay 3 millions et quelque pour ay billets mais su ma ko jëndee amu ko ma ko jox sama mbokk dañuy liggéey mën ñoo tëj seen place man samay combat ku xam kooñaa xam ne bu ñëwee stade nga ne kooñaa ñëw na am benn mosuma am ak promoteur loo xam ne nii dama koy wax ci promoteur te sama dernier grand combat bi laay door am ak jamay kee laaj ko sama ko wax ko jama dama jaay ay billets ba mu kontaan parce que lambu dimanche la franc bébé saalu ma ñëw bëri spécial bi maag Ama bu Malika noonu mosuma am ak promoteur problème promoteur boo wax Konia da koy tëgg mais dama ko ne lam ñu def ko mu ne arène nationale gratuite la Iba doo fay da ngay fay ma ne nga teg koy Iba Mar fay moo gën mu pare daa fa per xam nga loolu moo ko teg ko parce que lambu alarba man dama ko wax lu leer samay mbokki bool bool laa am Colobane commerçant yi fa nekk koo ci gis magasin la yor yére bal la ñuy jaay yére fagg jaay ay dal ñi ay téléphone yaa ngi may dégg bu fekkee lambu samedi la wala dimanche dañuy tëj seen place yi dem. parce que da ngay a waaj quatre heures nga waaj mais lambu àllarba bu tabaski bi waaj samay mbokk dañuy dem liggéey loolu benn promoteur du ma ko assuré ne ko dinaa jënd di jox ne xaalis bu weex tal lañ ma jox ci ma dugalal bi daal dépp ko sama wéef boo ko parce que tamit du ma jënd billet yoo xam ne nii aw ku ma ko jox ñetti super laa yóbbee saat ay booy maa leen jëndal billet ñoom ñu jox leen xaalis ne ngeen demee ngeen jënd billet ci bunte saat bi mais nit looy waxante moom trois trois fois nga jàpp ko bés di ko rambaay ci mbër mu ndaw te yow am nga mbër mhm. lay ñaanal ñu ne rambaay nañ combat bi kooku noonu après li mu la joxoon nga ñoo xam ne ñun ay xale lañ parce que rambaay mbër mu ndaw dafa waa Gambie wallahi asim fan ci club koñ ma fa dem bu ree damay sol lu rafet dem entraînement toll nu ma neex ñu teg fa ba ba suur ba ma bëree tournoi da xam man ndax man mbër laa parce que man fu ma dem damay kuul dama bëree tournoi bi jàpp gars di daan foofu Gambie ci la xam ne man mbër laa ci lañ ñoom ñëpp benn fël ci club lañ ma ubbi ñaari biis lañ luyee micro bi ñaari biis laa la wax wallaahi azim am na ku solom coppite bi sama combat bi kooku ne ab rapport la Godfather maa na def gis ngeen ni lay demee ci jàmmaarloo moo tax tey ñoom ñaar laa fi dalaloon xanaa ma bàyyi xew ngor mu tàggatoo sant gërëm ñu tàggatoo ba beneen. waaw dañuy santaat yàlla rek. Hmm. julliwaat si yonante bi santaat suñu ñaari waajur waxaat jërëjëfe Baay baañas jërëjëfe Baay Ñas jërëjëfe Baay ñu ngi koy sant lim ñu defal amuñu fayam. Hmm. waaw di nuyuwaat waa Ngor gi ma jóge di nuyu àdduna gépp di nuyu waa diaspora bi suma mag yi nekk France ma leen di nuyu di nuyu suma mag yi nekk États-Unis di nuyu képp koo xamante ni yaa ngi bëggee xeeru ngor waa ngor gépp maa leen di nuyu di nuyu waa wakaam di nuyu waa yof di nuyu aussi sama waa dëkku maam muy waa gànjaay waaw li ko dalee cuppaan mboxodof xalambaas combi xam nga ba mbelu maa ngi nuyu ñëpp xam nga di nuyu sama waa koñ waa gànjaay waa ndox mi maa ngi di nuyu di nuyu sama ñoom bàjjen xam nga bi yëpp maa ngi di nuyu di nuyu aussi ñi nga xamante ne dañuy sonn ci man muy criminels yi les premiers cadavres li ko ñoom bàcca xam nga jibi Diop Xaadim Ndiaye Maam Sam Juma Kas Omar xam ñoom ñëpp ay Issa ku lim juum daal di nuyu waa secteur bi fi may toog suma garant yi ñoom xaali Menga Demba xam nga ñoom Bamar xam nga ñoom Baye Maguette xam ñoom Maam Maay Tidiane maa leen di béggee di leen nuyu bu baax a baax a baax xam di sant ñi nga xam te ne dañ may jàppale ku ci mel ni Abdou Karim Ndiaye borom Black and White sama ndijaay la daf may jàppale bu baax a baax di nuyu di sant euh, docteur ñaa borom suma assistance sama sponsor sama papa sama lépp. xam nga mu ñëw fii waaw loolu du problème dina ñëw. di gërëm Amadou Gueye Ati la maire de Ngor xam nga moom il est infatigable chaque jour mu ngi ci ginnaaw jeunesse bi dañ koy ñaanal jàmm ah. di di sant tamit xam nga koo xamante ne responsable politique APR Ngor muy Antou Gueye Samba moom tamit ñu ngi koy sant bu baax di sant tra borom Noflaay bit xam nga di sant bay Bouris borom la Ngor Timis ak ah, yaatu na xam di sant képp koo xamante ne yaa ngi yaa ngi jàppale xeeru ngor rek xeeru ngor mu lay sant di la gërëm xam di nuyu sama benn rakk baay Ali si sama jour bi maa ngi koy nuyu di ko di ko ñaanal moom tamit jàmm di nuyu sama doom baay yëpp xam di bëggee ñi nga xamante ne tamit suma grand dañuy sonn ci man muy Ndoy Kan di Mamsal di Maga di Zalbey xam di Serigne Ndiaye maa leen di nuyu di leen ñaanal jàmm xam nga ñoom ñëpp daal di leen wax ne nañ ma gën a jàppale maa ngi ci yoon yoonu ndaw na du gaaw. nañ ma gën a jàppale di waxaat jërëjëfe Baye Niass jërëjëfe Baye Niass jërëjëfe Baye Niass. Euh, looy tàggatoo. waaw di waxaat rek baatu onze billah bismillah ina wan yàlla jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba waaw maa ngi nuyuwaat ñëpp ah. waaw di santaat Serigne Touba bu baax a baax a baax di wax magal gi yàlla nañ ci dugg bismillahi rahmaani rahim ngeen jëkk alhamdulilahi rabbil alamin di wax nag ñoom Mbaye Diop xam nga dañu am safar dimanche maa ngi woo ñëpp ah. waaw. di nuyuwaat euh, sama waa bu baax a baax a baax maa ngi nuyu bu baax xam nga nuyu Baye ma sàmb bu baax a ah, di ko ñaanal bu baax a baax ak Baye jiili Kolobaan Sanc borom yére yi maa ngi ko nuyu bu baax di nuyuwaat Tonnerre de mag moom laa àndal fii am ah, maa di ko ñaanal jàmm geste ci carrière am yal na rafet incha allah loolu laa koy ñaanal waa di nuyu nag Mohamed Asale maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko sant di ko gërëm parce que dinaa taxawaayam Assane Sarr maa ngi koy nuyu bu tubaatul séeri astuudi san sama mag Abdou maa ngi koy sant baax booy sama doomu ndey caatu laay borom yoof maa ngi bu baax a baax a baax parce que da ciy jàpp borom coof yi maa ngi nuyu bu baax moomoo borom lagros moo du fay borom lagros maa ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm borom terrain ya ah. maa lay loo mën ren yàlla na nga ko mën déwén maa lay bégg bu baax di leen nuyu ak yaag sa famille yëpp ak seen waa kër yëpp ay nit ñu baax ngeen maa leen nuyu bu baax moo du fay waaw di nuyu nag waa Touba bu baax a baax amit jéey monsieur le maire Ahmed maa ngi koy nuyu bu baax di ko sant ko gërëm di ko wax ne ko yàlla ko yàlla jàppale li muy xëccoo nii yàlla ko ci yàlla jàppale groupe tubaatul maa fierté maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa la waa Njéefun waa Sambaay sama dëkk waa Newraan lamin Faye lamin Ngom maa ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax day son ci ma di ma taxaw la ma bitik maa ngi koy ñaanal lu mu mën ren yàlla na ko mën déwén maa ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax ñoom laay bébé maa leen di sant di leen gërëm di sant mafia bi ñoom caw xam nga ah ñoom altu borom jàmm geen njàmme maa ngi koy sant bu baax a baax a di ko gërëm parce que gis naa taxawaayam njàmme wallaahi si day sonn ci man guddeeg bëccëg lu ma soxla rek am mu defal ma ko maa ngi koy sant ñoom seex mu ndaw seex bu mbay gi maa ngi koy bu baax ay baro xam nga ñoom ay ñoom uus ay ñoom baay mor ñoom ñëpp maa ngi leen bu baax a baax di sant maa nga baax bu baax di ko sant di ko gërëm waaw maa ngi sant nag kii sama benn xarit quoi Issa maa ngi koy nuyu bu baax dañoo gëwëlee yam yii kenn mosu koo gis. Isa maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di ko sant di nuyu Laat Dumbul sama doomu ndey maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu nag waa yëpp di leen nuyu bu baax a baax waa Jaamal waa Jama Ceewi Kaarang sëñ Ablaye Diop maa ngi koy wax mu gën a yokk ñaan yi Xaalim joob waa Guy Ndiaye maa leen di nuyu bu baax a baax a baax di gin di wax gis naa seen taxawaay waa ci la ñoom sëñ Mbàkke si la sëñ Xaadim ñëpp maa leen di nuyu di leen san di leen gërëm di nuyu nag sama benn xarit bu ne Espagne Babacar maa ngi koy nuyu suñu kër la nekkoon quoi maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu sama tarkindaa bi nag kenn du moom barke Sëñ Fallou bàyyi jël am rek moo ko fi andi. <laughs> Sénégal problème yi am yëpp. bàyyi jëli lépp moom barke mu yëg mu yëgul bàyyi jëli la tarkindaa yaa may gis <laughs> la koj jam la bëy këpp sama tarkindaa la billaay ko def ci man laa la wax non jàmbaar la bëgg na xuloo xuloo rek la man baa jiili groupe yëpp xuloo na fa gaa dañ ko yàpp ay millions lay def ci man barke alxuraanu karim lu ne lay daj ci man laa la wax exemple ay créatine la ma dugalal la wax mais Baye Fall la Baye Fall la borom baax la xam day ruubee day ruubee di kaf xama mais borom baax la quoi man moom di ko nuyu yaayam xamante yàgg na mais tooñante nañ tooñante tooñante mais après xam naa ne borom. baal borom baal la bëgg na nga jël non moom li li yëpp moo mais dinaa ko dóor mu daanu moom. <laughs> na nga bañ a moytu rek. waaw gis looloo booy leen di nuyu ñëpp ku ma limul rek. xam na xel moo fàttu di nuyu di nuyu Galas Seen maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm tamit ak jabaram Anta maa leen di nuyu ñoom ñëpp di nuyu sama papa yi ne Touba Baye Mass ak sama tante yaa mi maa ngi koy nuyu baax di nuyu Cheikh sama doom baay xam nga ñoom isaa Faye maa leen di nuyu ñoom ñëpp xam nga bekkaay bu Colobane maa ngi koy sant El Hadj Sarr maa ngi koy sant bu baax. caatu Colobane kenn lay mat. la maa war a may ma remplacer ñëpp. ah doo ah, may ma remplacer la tuuti boobu. waaw maay maay maay nuyu ah kii ah. borom la waay def boppam ah mooy loolu noonu Goro Mar Goro Deport ah, su ma garant su ma lépp la su may open press sax lépp moom may defaral ay t-shirt dama koy may. fu may dem damay defaral t-shirt xam nga. sama benn jigéen quoi ma ko fàtte Ndeye Sarr maa ngi koy sant bu baax a baax. waaye borom koppar rek ngay woo boobu ba léegi. ñoo dañ may jàppale. man borom xaalis déglu bëgg xaalis man bool bool la bool bool. bool bool da ngeen bëgg torop teel micro maa ngi koy nuyu bu baax a baax Ndeye Sarr di ko san mook toos jëkkëram ak Elisa ak jabaru père Ambroise Sarr bi maa ñu dem fa mu jàppale waale ñu parce que yow li nga bëgg dafa yomba. waaw ah, gis ngeen ni lay demee ci jàmmaarloo nii lay demee ci jàmmaarloo nii chaque jour ma wax leen ko mbër yoo xamante ne am nañ komba wala ñi nga xamante ne seen combat taxawagul wasaaya làmb làmb la fi nekkal ba tax na ñoo ngi woo mbër yëpp mbër yu mage nag nañ ma xaar maa ngi ñëw bu baax a baax ci seen kaw di leen jox dig daje jàmmaarloo beneen yoon ci yenn émission jërë ngeen jëf